seen chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer amma yatasaaluun anin naba'il aziim allazi hum يختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار عشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سددا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا حسبك إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا أعوذ بالله من الشيطان خير كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت يا والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم منهم فكذبوهم فأخذهم العذاب فأخذهم فكلوا العظيم وإن لم تؤتوا فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أقالون للسحر فإن جاءوا ربك فاحكم بينهم وأعرض عنهم فإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين حسبك حسبك jërëjëf صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله خلق آخر ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين حسبك حسبك صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Muhammad والملائكة والناس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 أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله بالله وباليوم الآخر وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يقاتعون الله والذين آمنوا وما يقاتعون إلا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 يفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون فإذا لقوا الذين قالوا آمنا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 واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيف سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة تجارة حاضرة تديرونها بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم sadaqallaahul aziim a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wa anaatil ومن حمل ظلما ومن يعلم شكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تجد له عزما ولقد عيدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة فسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك ولزوجك فلا يخ أخرجنكما من الجنة فتسقى حسبك jërëjëf sadaqallahul aziim ma sha Allah jërëjëf sëñ Moustapha ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك إن إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني قد جئتكم جئتكم بآيات من ربكم إني أخلق لكم من الدين من الدين كآيات طيبة أنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله وأظهر لكما ولب وصوأ وحق الموتى بإذن الله بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك آية لكم إن موت المؤمنين حسبك ساق الله العظيم Rafah TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer